waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, di leen dalal fii ci GESMAF GESMAF nag mooy groupe scolaire Serigne Modou Abdoulaye Fall moom laa ko tuddee euh, nekk fii ci diggante Saam ak Jannatu ak euh, Madiana waaw. waaw waaw école bi de maanaam xam nga dëkk bu ci nekk de nga am dafa am wormay boppam am gëdday boppam te dëkk bii di Touba lépp loo fi def danoo war a fexe ba mu sédd cër euh, kilifa dëkk bi muy Serigne Touba ak ñu ko fi nekkal ñëpp ñu mu dig njabootam euh, te ñu seetlu ne am na loo xam ne moom mi ngi fi bari na fi lool muy alxuraan jeeg xaside yi ak araab bi waaye nag dugal ci nag français bi ba nga xam ne eh, xale yi fiy génne paaka ñaari bor la ñuy doon waaw yàlla def dana nu dimbali nag ba njàng mi nga xam ne moom lañ fiy jàngale muy jàng ak yar su ngeen gisee école bi daanaka ma gis sëñ Tuubaa rek nga gis ne nga am ñu taf fi seeni nataal ndax fii moom danoo jàngalul xale yi magi nasaraan jàngalul leen magi naar mag magi Serigne Touba dong lañ leen di jàngal waaw xale yi dañuy dañ kumpa kii kan nga ne kii di sëñ Abdoulaye Mbacke waaw ñu laaj la ci nga wax leen ci kii sëñ fàllu Mbacke kii sëñ Mbacke Madina kii nga topp ko noonu ba mu jeex kii maam Cheikh Rafala kii maam mu Ndiaye loolu moo waral dégg nga maam décoration boobu ngeen gis ci hall bu mag bi waaye dafa am lu ma seetlu euh, te euh, muy loo xam ne xëy na ñu bari seetlu nan ko mooy dëkk bii di Sénégal sunu boroom dafa def loo jàng jàng jàng bu mën a yorum réew fii jàng woo ko ci kalaamak nasaraan kenn du la sidd benn cër te man li ma jàpp mooy Serigne Touba cër yi ñuy joxe yépp damaa jàpp ne ak njabootam ñoo war a dem jëli ko bu dee ndomb ak tànk gu ñuy laaj ñu tàllal seen loxo bu dee gouvernance ñu ne indi mën na ma mën naa ko yor bu dee préfecture nga ne indi mën na ma ko yor bu dee présidence nga ne indi mën naa koo yor waaye day fekk nag da nga am nga jàng ko ndax nit man naa yorum réew. ci jàng wolof kese nit mën naa yorum réew ci jàng arab kese waaye nag réew mii moo bindoo noo xam ne feeg jàngoo nasaraan du nangu ko doon fi président benn ndomb ak tànk bu ñuy joxe dégg nga maam mu jëm ci yooyu yi duñ la ko nangoo jox te nag man ma bëgg nag dégg nga maam Serigne Touba ci boppam ak ku ko fi mën a nekkal lépp loo xam ne yittewoo na ko fu mu dem fu ne fekk fa dongoo da bu yor loole yor ndomb ak tànk le kon nag loolu fii lay tàmbalee. te sëriñ Muntaxa nafaana allahu euh, bi barakaatihi yàlla nanu yàlla taas ci barkeem bi te dimbali si moom xam-xam la woote xam-xam nag xaw ma bokk ca sëñ Cheikh Mbàkke ko waxoon yooyu yëpp moo ma euh, jañse ci ma ñëw ba Touba dëkk bu sell bii ne bu doon alal rek la mën naa koo samp ndakaaru waaye dama jàpp foofu sama liggéey da cee nekk ma ñëw ba fii de nga am samp ko fi sëñ Muntaxa xam-xam la woote te xam-xam nag moo waral da nga am université bii mu taxawal ko te université kenn dina ñokk rek daw dugg fa dafa am foo war a jaar dafa am foo war a jaar te làkk moom ma seetlu ko xam ne làkk moom muy nasaraan muy pël muy wolof muy naar muy tukkulóor aw làkk dong la li am solo mooy jikko ji loolu tax ma jiital na leen jàngalul leen ci école bii magi nasaraan yi wala magi naar yi magi sëñ Tuubaa yii jikkoy sëñ Tuubaa jikko moom wutiwuñ ko fen bu fekkente ne nag la anglais la wala français nag wala informatique wala lu manti doon te ànd ak jamono jii danoo bëgg di ko jàngale ci école bii lii daal mooy li nga xam ne eh, te tamit ma am benn seetlu ma ci seetlu gis ne ndekete du jàng arabe rek mooy tax a baax wala jàng nasaraan mooy tax bon gis naa ñoo xam ne danoo jàng araab ba nga xam ne loolu doo la ñu jàng ba géeju ci te yow bëggoo ñu doon sa baay bëggoo ñu doon sa mag bëggoo ñu doon sa nijaay lu ko waral mooy jikko ya fekk mel ne Sëñ Tuubaa dégg nga am nga bëgg koo gannaawal nga gis ñoo xam ne dégg nga am nasaraan kese lanu ñu jàng ba mel is bu tarxiya yii te foo leen gis dégg nga am bëgg bëgg ñu doon sa mag bëgg ñu doon sa doom lu ko waral mooy jikko yu nu làmboo am xam-xam ba noppi bëgg Sëñ Tuubaa nekk ci dëkkam bii te di ko liggéeyal waaw man daal li ma leer waru ci gàttal mooy li ma leer waru mooy li ñuy lépp. ci réew mi waa kër sëñ Tuubaa nga am kenn du leen ci gën a séddu waaye dafa dafa jar nag ñu waaj waaw dafa jar ñu waaj su fekkente ne dégg maam da nga bëgg président bu mel ne Ablaye wadd dàq koo jàng ba noppi gën koy taalibe te xam nga ne Ablaye Wade moom jàng na te xam ngeen ne taalibe la waaye ñu ko man fopp laa bëggal sëñ bi. Mmh, kon daal bi Sénégal. système maam baaxul baaxul mën nanoo dem ba mu jàgg fii ramification bay ñëw ca kanam. nga xam ne da nga maam lii mooy mooy moo mooy cëslaay li dañuy dem mu jàgg li nga xam ne moom lay réew mi soxla loolu la war a jàngal corps de métier yi nu war a jàngal xale yi tey jii mais du ko jóg rek dégg bëgg a toog ci bureau rek rawaatu dégg nga ba defe ne ab tubaab nga li nu soxla jàngal leen dégg nga nan ngay saytoo sa commerce ba doo jaawale dégg nga bénéfice ak capital jàngal leen dégg nga maam lii nga xam ne dégg am ay tabax la te léegi ñu bàyyi ñu ñu bàyyi yu bare bare kenn séngatul kenn néega ñaxatul mais lii xam-xam a koy liggéey beton bi dégg nga maam bi ciment bi dosage yi yooyu dañ la ko war a jàngal électricité lépp lu jëm ci kër carrelage ah peintre yooyu yëpp ay yëf la yoo xam ne ku génn mën a liggéey waaye yor diplôme yi doon jeex muy ay kayit kese nga génne dégg nga maam kenn amul euh, euh, euh, gouvernement bi amul fu mu la dugal yow ci sa bopp amagoo capacité pour ubbi sa yëfi bopp baa boo ko ubbee dégg nga ña ngay ña ngay jëflanteel ñu néew lay doon kon li réew mi soxla dafa mel ne tey gii bu fekkante ne dégg ñun ceeb ak dugub la ñuy dundee nanu dem jiwi ceeb ak dugub ñun ci suñu bopp bala ñoo jàngale jàngal xale yi li leen di jàngal mooy li ñuy soxla ci réew mii nga xam ne mënuñu koo ñàkk waaye duñ leen jàngal loo xam ne rek dégg nga maam alors euh, ci dafa mel ne suñu constitution bi rek bu ma bu ma ko jëlee rek doy na bi lu ñu jëlee ca France la ñëw indi samp ko fii bokkunu ay aada bokkunu ngëm-ngëm bokkunu yu baree baree baree bare lii boo indi suñu problème ñun danoo war a toog liggéeyal ko suñu bopp xalaat ko ci suñu diine jii xalaat ko ci suñu aada jii xalaat ko dégg nga ci suñuy jëflante su boobaa nag ñu tënku ci waaye di tënku ci loo xam ne ay nasaraan ñoo ñoo ciy tënku loolu moo indi suñu jafe-jafe yu bare waaw état euh, na ma yàlla baal euh, ñoom danoo ñëw depuis les indépendances tubaab yi bàyyi leen fi bàyyi fi da nga mam jumtuwaay yooyu li waroon a njëkk a def muy révolution mooy jumtukaay yooyu yi nga xam ne mooy sunu base de société moom la ñu war a dindi ba mu set wecc ñu toog la constitution de 1958 ca France de Gaulle bi mu koy def di ko defaloo di di ko defloo Michel Debré danoo toog xalaat ko ay boroom xam-xam loolu xëy na ñoom intéressé na leen waaye ñun suñu constitution bi xam nga ne bii taxuñu koo jóg mun Mountakha mii taxu koo jóg ak keneen ci Tiwaawoon baa feneen fu mënti doon ñun ñoo war a toog xool sunu constitution defar ko su ko defee jàmm ji dana am Sénégal déggoo bi dana am te kenn imposer loo xam ne sunu ngor ba bëgg ko sunu diine bëgg ko ba dem na ba ci biir njàngale mi ñu bëgg cee jàngale maanaam nan la ñuy sëyeeg nan la ñuy kiiwe kersa jeex ndax di nga bi tey jàngalekatu alquran bu duma benn dongo kese mën na noo dem jëli ko moom ba duma ko ba tëj ko ñoo ñi ñuy wax ñaari tur yi nga laal ci kenn yow mi leen laal boo deful nànk yow la ñuy duma tëj la kon xam nga Eh, mbir mi nag eh, sunu li nga ko waxee sunu état eh, danoo tënku danoo yeew seeni loxo ndax seeni doole bariwul cim koom ndax fi nu daw dugg a tax foo ko ñuy soxla xaalis bu baree bari pour doxal seen mbir te xaalis boobu amuñu ko ñoom impôts yi génnewul lu ko lu doy kon faw ñu koy wuti bitim réew waaye bitim réew bu la ko joxee dafa am lu muy gàll ci sa kaw doo ko wax bu bukk nag waaye ku xool na ngay doxale danañ xam ne yow mii am na loo xam ne dégg am tënk na la xëy na bëggoo ko sax waaye tënk na la ndax dégg nga bi su fekkonte ne nag danoo xalaatal sunu bopp nu lekk li ñuy bay dégg nga bi baa boog ñun li ñu war a dundee moom la ñuy gën a gëddaal duñu dem di ko importer di ko jëli man léeg-léegi sama yaram maanaam damay xaw a mer tuuti du ma duggee ci marché bii na nu ma baal marché bii ak marché Dakar ak marché bu manti doon cantine yi mun matoon ñaari téeméeri cantine nga xool lan fay jaay amul lenn lu nuy defaree Sénégal t-shirt yi jean yi lépp laa wax boo ko xoolee ñu wékk ko amul le sunu tailleur yi lan la ñuy liggéey kon su boobaa ñun ñoo ngi dundal da nga am tailleur yoo xam ne da ay chinois lan wala ay français lan wala ay leneen lañu doon buub suñuy xaalis commerçant yi yóbbu ko da nga ñu jox leen lu tekkiwul dara ñu def ko da ci conteneur yi indi ko jóg ko ci biir dëkk bi biir dëkk bii dégg nga maam laxasaay lañ fi war di sol boroom dëkk bii dafa am nu mu bëgg euh, waxin dafa am nu mu bëggee colin dafa am lu mu bëgg lu ñu fiy lekk lu ñu fiy naan du dëgg waaye loolu lépp gis naa ne bay bay léegi dem naa dem a dem ba xale yi fi ñu toll ay kap la ñuy sol ci biir dëkk bii sol seeni jiin yu xotti ko sol seeni t-shirt bi te koo ci laal ab xolam fekk ci Serigne Touba kon kooku wëlbati ko gaaw na ne ko bul topp ñi nga xam bee fi nekkoon ak nasaraan si man day daw naa wuti sëñ beeg lu mu am man xam-xam nag moom mën nga koo jëli ba Chine ak lu mu sori sori sori waaye amaa jikko nag ak ay colin nag ah boo demee ba ba Madinatul Munawwara Makka diine la nga fa war a jëli waaye waroo faa jëli waroo faa jëli li nga xam ne da mooy seeni aada seen lekk ak seen colin ak seen i doxin da koy bàyyi ak ñoom boo demoon Inde bàyyi fa seeni i colin ak seen i takkaay ak ñu ma xamul te jël diine bu fekkee ne am na fa bu dee Europe noonu boo ñëwee senegal gii ñun am nañu sunuy bàyyi laat ay sunu sunu sunu sunu sunu sooy bu sunuy ñetti morso yooyu sunuy aadala waaye diine ji moo am solo foofi dem fu ne ci réew mi da ngay fexe soppi ñooña waaye yow bu la kenn soppi yow. waaw boo nekkee ci biiru dëkk Touba te yow bëggu faa tuxoo da fexe ba doo fa def loolu lay tuxale dégg ngeen wax bi. waaw sëñ Touba ñun mu jaawara lan def mu jaawara danoo ñëw dëkkaaleeg moom voisinage waaw bàyyi suñuy kër yi bàyyi ak suñuy dëkk ak suñuy lépp ñëw def ko sunu ndey sunu bàyyi sunu maam sunu nijaay kooku nag da ngay jox wor ma nga ko jox worma man de école bii moo xam naa ne moom xam-xam bëgg naa daal moom bu fekkente ne tubaab lañ fiy làkk sax di ko jàngal xale yi nanu mel ne da nga am ko taxaw diggu France laa wax di làkki tubaab waaye bu la tee boo xëyee suba da am bala ngaa dikk da nga jàng sa jaalibatul maraqaba sa nooru daaree ni waaw boo demee ci sëriñ bi boo demoon ba yër réew mii di ko wut doo ñëw naan groupe ci suuf boo demee ba nu yëkkati réew mi teg ko sa loxo boo dellusee di sol sa mbaxane ci kanamu sëriñ bi di toogandoo ak moom te léegi-léegi mu jox la dénk maam ndigal loo xam ne boppam taxul taalibe yee tax maanaam ko waa sëñ bi ma ko de maa nga ci de déedéet dama bëgg ñiy génne fii fu nu mën a àgg dénk maam ci martaba bu leen sëriñ bi wooloo ñu dikk ne group ci tànkam ndigal lu mu leen jox ñu dellu présidence wala gouvernance doxal ko lii mooy li nga xam ne man mooy sama liggéey ci école bii waaw kay moom mii di di oustaz jaw nga xam ne bokk na ci li dox suñu diggante ak làmp Fall ñoo leen di siyaare bu baax a baax sëñ Aliou Thioune nag ñoom bay dégg ñëpp rek euh, moom moo yore fii arab bi am na nag ñeneen ñu ko ci jàppale am na ay Seyda am na yeneen oustaz Euh, oustaz Bousso nga xam ne ñoom ci Bousso bi la nekk waaw euh, boole ceegit alxuraan ji baax na lool ñoo ngi ci arab bi noonu waaye tamit dama cee dugal man jaalibatul maraqib li tax ma dugal ko ci nag leen rek la sëriñ bi dama dégg ci ku wér mu wax ne li may def ci dong kenn fekkuma ci ko dul jaalibatul maraqib te man mu bëgg dong yi jàng fii ñuy yaru ba pare jub xocc ba bu demee ba dénk leen milliards réew mi ñu doxal ko ni ñu ko war a doxate bañ ko lekk ñoo seen njaboot jërë ngeen jëf.